الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبكو جروب بن يملن دي السلام عليكم ورحمة الله دي فاسيين تاي دي نيو دي وقتان تي بن بنت بو خمني بنت بو أمسر لا موي يقتب بكو يغا خمني Euh, fes na suñu jamono ji ñu nekk euh, rawatina ñun lañ ci gën a intéressé muy dëkk yi nga xam ni dañuy dund l'islam ñu am ay mbir yu ñu leen présenté naxee leen ci mbir yooyu wan leen mbir yooyu doxalin la boo xam ni bu féete kaw la ubbil leen li ñuy wax mondialisation wan leen ni monde bi léegi benn porte la lu xew beneen réew war naa mën a am beneen réew ñu am foo xam ni dañoo bëgg ñun ñëpp ñu viser fa ñun teg fa suñuy bët may leen suñuy nopp ba nga xam ni lépp lu ñuy jëf foofu dañ koy copier ñoom buñ ne wow na ñu ne koŋ bu ne buñ ne tooy na ngeen a xepp buñ nee ñuul na ñu ne kukk buñ ne weex na ñoo tàll ñun daal amuñ genn choix bu ñu xëyee ni avortement crime la ñu ne crime la ko def ñu na la ko def crime bu buñ demee ba jëmmi jamono ñoom ñi waxoon loolu buñ ne avortement léegi kat lu légal la ñun dafa ñu ne lu légal la bàyyi ñun amuñ benn choix nañu xool foofu rek ñun léegi nag ñoom seen jubluwaay lan la ndax la ñuy maska woo ca kaw muur ko mbalaan mu weex ndax lu weex a nekk ca biir wala déet foog ñu xam loolu baax a baax ñun jullit ñi xam gaa yi seen jubluwaay lan la ndax yàlla moo ni wala yazaaluuna yuxaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in istataau yàlla na ñoom du ñu deñ di xeex ak yéen jullit ñi xeex nag du gargaas yi kese xeex façon mooy xeex bu ne am na xeex ci làmmiñ am na xeex say image am na xeex say bind am na du ñu deñ di xeex ak yéen ba keroog ngeen di génne seen diine fekk ñu ngi koy man nag fekk ñu nga am occasion bi dañ ko jéem kon nañu xam loolu baax a baax ñu xam fan la yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkoon doomu aadama yi ñu koy dund ak fan la leen jëlee ba mu leen fa jëlee ba indi leen teg leen ci njub ñu ñëwaat ñi dañuy beesalaat dañuy wan doomu aadama yi la ñoom fan lañ jëmee doomu aadama yi est ce que dañu bëgg a woon fa la yonti yàlla muhammad jële woon dañ ko leeral incha allah bu ñuy leeral loolu dañuy indi bi yàlla avant yàlla yónni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa civilisation yi nga xam ne ñoo fi nekkoon bokk ci civilisation yu gën a mag nañ jàppe woon doomu aadama ak nañ jàppe woon dunduk société nan la woon bu jëlee ci ñi nga xam ñooy xunóot ñooy ind yi ñoom dañoo amoon seeni luwaa yoo xam ni dañ koo tëral luwaa bi nekk ñeenti pàcc ba ca njëkk mooy dafa am ñuy wax albarahimiya ñooñ ñoo nekkoon ci couche bi gën a kawe ñoo ñuy wax rijaalu diin ñooñ ñoo yor diine jeeg yi demee ni ko noonu ak noonu am ñuy wax safra ñooñ ñooy rijaalul harb ñoo ñooy waa wàllu guerre yeeg soldaar yee gi demee ni ko noonu am ñuy wax riis ñoo ñooy rijaalu ziraati wa tijaarati ñooñu ñooy wax wàllu mbay meeg commerce beeg noonu am ñuy wax soo dar ñoo ñooy rijaalul xidmat yi ñoo ñooy yor wàllu liggéey yeeg euh, manœuvre yeeg yi demee ni ki noonu ñu bind ci benn dustuur benn ay constitution boo xam ni ki ko bindoon ñu koy wax maanu mu ne yàlla ji mu ne yàlla ba mu namee bind nit dafa jël ci gémmiñam bind ci ñi nga xam ñooy barahim yooyu mu jël ci ndiggam bind ci ñi nga xam ne ñooy richa mu jël ci ay luppam yàlla ma yàlla jéggal ci kàddu gi bind ci ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, riis yi waa ci ndiggam la bindee ñuy safara yi mu ne ci luppam la bindee riche yi waaye nag ci ay tànkam la bindé ñu ñuy tuddé sawdar mu ne ñoo tax ñooñu ñoo gëna soufé suufe seen amuñu benn jëfin dulul liggéey dom mo tax jamono joju ñom ibrahim ye dëgg bu rayam nit kenn ko ray dañ fay wo rek wat karaw gi bayiko mu dem ndax né nañ koku mom euh ci niveau bu gëna xaway kawee la bokk société bobu di dundé nonu ñuy suufeel ay doomu aadama di leen toroxal ci pass pass yooyee nañu xam loolu baax baaxa baaxa a baax bu ñu demee ci fi nga xam ni mooy faris mooy perse yi ñoom seeni akasira yi mooy seeni kisra yi nekkoon buur ñoom jamono jooju dañ doon woote woon ni ñoom deretu yàlla mooy daw seen yaram nit ñi di leen xoolee di am pas-pas ci ñoom ni ñoom dañoo yor benn melokaan boo xam ne dafa supérieur doomu aadama yi ci wàllu sell ndax seeni deret yi deretu yàlla ci daw ñu mujj di leen woyal ay woy yoo xam ne ay woyu yàlla la ñu jàpp ni ñoom seeni njiit yooyu dépassé nañ luwaa yi ñoom ña ci kaw luwaa yi dépassé nañ mbindeef yi ñoom ña nga ci kaw mbindeef yi dem na ba yegg ci ni seeni tuur boo ko tuddee woon seeni làmmiñ direct rek yow pen bu rëy moo la cay fekk fépp fu ñu toog ba jug képp ku fa toog pen bu rëy moo la cay fekk ñu dem ba jàpp ni àq la ci doomu aadama bu ne ci jamono joojule seeni njiit yi bu ñu soxlaa sa alal la ca gën a baax day ñëw rek jël yow mi ngi koy jël waroo sax gëm ni jàpp ni ñoom dañoo sax sa alal da nga war a jëm ni ñoom ak ak sarax lañ jël sa alal li génn jëm ci ñoom sarax la boo amul pas-pas boobule pen bu rëy mën na la si fekk muy perse yi kon perse yi loolu bokkoon na seeni pas-pas bañ a gëm loolu ci ay nit boo demoon ci grec yeeg romain yi ñoom demoon nañ ba gëm ni képp ku dul ku bokkul ci ñoom yow ab barbar nga ak nit ku tekkiwut dara nga ñu gëm ne ñoom seen askan rek ñu askan bu noobul bu baax askan bu riis waaye du ñu sori dañu jëm fii nga xam ni moo ñu gën a jege Hitler la mu gëmoon ba sos deuxième guerre mondiale mooy lan mooy jàppale ni askanu german mooy askan bi nga xam ni moo gën a tedd ci kaw suuf te moo gën a yey pour diriger monde bi et der loolu muy german muy askan boobee du ñu sori nañ dem ci États-Unis bi nga xam ni ba tey ji dañul ñu fay sous-estimé di fa toroxal ay nit ñoo xam ni sax ñeen toroxal mooy der bu ñuul lañ yor ñu leen di rey i leen di tëj ay pen yu lóor ngir lan der ñuul lañ yor sorewul nañ dem ci junubu Ifriqiya muy Afrique du Sud dem nañ ba seeni kana kanisa yi nit ñu ñuul yi ñemoo ñoo dugg ci kanaayis ñi nga xam ne ay nit ñu weex lañu loo góor góor góor doo yegg ci benn niveau ci seeni euh, xis-xis yeeg seeni roxbaan yi am na niveau boo xam fa nga mën a yem soriwul dara kon jikko yooyu melokaan yooyu doxalin yooyu la lislaam ñëw effacé ko ba koo effacé pour teg jikko yu nga ni ne jikko yu rafet lay doon ñun yëpp yemoo ci kanam borom bi subhanahu wa taala bu boobaa ka gën mooy inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki ragal yàlla moo tax boo demee ci xarnu saadis milaadi muy sixième siècle demoon nañ bay jàng seeni biir kanaïs yi kanisa yi nan di poser question ndax jigéen nit la walla mala la allahu akbar demoon nañ ba yegg foofu ñuy ñu dañuy poser di jàng pour vérifier ndax jigéen moom nit la walla mala la boo demee ci arab yi yeggoon nañ ci bu ñu amee doom bu jigéen dañ ko doon gas ba mu xóot ñu suul ko ñu ne gàcce la kon yii la yoon ci yàlla Muhammad sam fekk nit ñi di ko dund ind demoon nañ ba nit ki bu génnee at njëkkee génn àdduna soxnaam dañuy soxna si doo fa amat jëkkër ba ilaa yawmil xiyaama dañuy doyee soxna si Euh, ba mujj jigéen ñu bari bu seen boroom kër génnaat dañuy xaru mujj taal seen bopp ndax lan musiba yi nga xam ne ak toroxtaange ak suufal gi ñu koy suufal gannaaw bi nga xamee ni boroom këram génn àdduna demoon nañ ba yegg ci ni góor mën naa dem ci bërëb di carte teg soxnaam soxnaam këram de mu teg ko bu pertee waa ji nga xam ni moo gañe day waaxu dem këram gën ndaw si waa ji rek jël soxna sa yóbbu soo sa amul droit benn droit bañ ñoom yeggoon nañ ci cadre boobu si fu ñu wàccee jigéen kon foog ñu xam ñiy daw tey jii di woote woon yi dañuy libéré jigéen dañ koy jox liberté ndax dañ koo xañ ñoom fan lañ tegoon jigéen ak fan la lislaam ñëw indi jigéen fan la lislaam ñëw indi doomu aadama teg ko ba ñoom ñu tourné di làqatuwaat ay yenn mbir yoo xam ne lañ sa jublu ci biir mooy xeex ju koy rafet di ko tuddee libéré jigéen di ko tuddee ay nangam ay tur yu bari bari bari bari bari moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni mu ñëw fekk si doxalin yooyu suñu borom wàccee saar di leeral lan mooy tolluwaay doomu aadama yi ci kaw suuf ak seen kanam borom subhanahu wa taala yàlla mu ne yaa ayuha annaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa xabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum mu ne ey yéen nit ñi waxul sax yéen ñi gëm yàlla yéen nit ñi la wax inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa maa leen bind ci góor ak jigéen muy aadama alayhi salaam ak hawa kon ñun ñëpp boo ñu dàqee ci aadama ak hawa la ñuy dellu mu ne wa jaalnaakum suuban wa xabaila ma def leen ay peuple ak ay giir peuple boo dem am na ay géer yu nekk ci biir peuple boobule Sénégal peuple la waaye biir Sénégal ñaata géer ci nekk yàlla li tax ma def ko mbir moomu la li taarafoo ngeen ngeen mën a xamante mu ku nekk mën a découvrir sa morom la mu am sa sa morom amu ko mu découvrir ko sa moromit it noona xamante mën a am duggante mën a am dimbalante mën a am waaye nag loolu ma def lépp bu leen yaakaar nag ngeneel ma nga jóge ca loola déedéet ngeen a jigoo ci loolu de inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën ragal yàlla kon fii la l'islam indi nit wan ñi du caagin ay course bu baraax yi may doon def ñii ñoo féete kaw ñii topp ci ñu topp ci ñee dem ñi ñi ñooy yàlla yi ñoom buñ jëlee ci alal sax wax dëgg yàlla da nga a jàpp ni sarax la ñii ni xeet bi xeetu jirman moo gën ci xeet yi boo demee ci rome yi jamono jooju euh, grec yi yu ne l'islam leen déedéet yi ñi yépp ci benn bakkan laa leen bindee muy aadama yi leen ci aadama ak hawa kon maa leen tax séparé la defeen ay giir ak ay askan ngir lan rek ngir ku nekk mën a découvrir sa morom waaye nag ngeneel ga nekku ci loolu de la mu nekk mooy inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki ragal yàlla kon fii la l'islam ñëw indi fi doomu aadama yi wala ni ngëneel li nekkul ci askan ngëneel li nekkul ci der ngëneel li nekkul ci am-am nekkul ci comportement nekkul ci dëkkuwaay déedéet ngëneel li ci fa mu nekk mooy ci nit ki fan la toll ci la ko boromam fas kon xoolal fi yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dilli suwaat doomu aadama yi na mu in na mu simplement na mu xeexee la nga xam ne doomu aadama yi séddale woon nañ ko tas ko def ko ay xaaji xaaj ngir man cee séparé doomu aadama yi man cee noggatoo ay nit yonti yàlla muhammad benn aaya wala ñaar la yàlla wàccee mabal loolu lépp allahu akbar mabal loolu lépp muy yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa xabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum يرنت الله محمد صلى الله عليه وسلم ياتي صحابي يي نياتا صحابه بلال نكون افريكان نكون حبسه صهيب الرومي سلمان نكون فارس نكون فارس نير اي عرب نيوم نيوب مو دايال لين سي بن برب امول كين كو غيس نغنيل سي كاو سما ndax yàlla xamal neen ni ngeen li nekkul foofa yonent bi yar leen ci dëggu ak ragal yàlla yar leen ci maandu yar leen ci fegu yar leen ci fegu ba nga xam ni jomb nañu am nañu ragal yàlla bi nga xam ni jomb nañu sànjaafu la nga xam ni moom lañu yàlla tere moo tax keroog yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ba mu waxee jullit ñi ñu gàddaay dem xabasa ci najashi ndax amna buru fa nek bo xamne kenn ton ci kanamam bañ demé xuraysi yebal ay nit pour ñu dem jëli ji leen najashi comme bur bu mànd la won dafañ leen déet duma doxalee noona dafa wo sahaba yi ñu taxaw mu laaj leen luy seen bir kéro jaafar ibn abi talib mo jël parole leral ko ñu ko ñun ka dañu nekkon ay ceddo dembu allahu akbar ay ceddo moy yeuf jëf jëf ceddo di nan sangara di lekk lu xaram di mooy yàlla ku ëpp doole sa morom néewal ko doole waaw ku ëpp doole sa morom nangu alalam ñu nekk ci loolu ba yàlla yónni ñu ci bi mu xamal luy njub luy maandu luy ragal yàlla luy ndimbal luy yërmande luy mbokkoo bañ a mbokk ak yi demee ni que noonu noonu bañu dugg bañu del bañu nekk te loolu ñuy mbokk yi ni mukk dañuy fitnaal pour ñu delluwaat ci mus boobu ñu ne woon mooy kon tey ni occidentaux yi tey jógee di maskawoo ci turu defar turu liberté turu égalité ngir indiwaat jikko démb yooyee waaye dañ koo kaala mask ko mbuur ko mbalaan mu weex waaye ci biir yëpp dansé sene jaafar saadi jaafar ni ko loolu la ñu bëgg a dellowaat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu dem leen xabasa am na buur bu maandoo ba fa nekk boo xam ne kenn du tooñ ci wetam allahu akbar kon nii la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàggatee saxaaba yi teg leen ci ay jikko defar leen ba ñoom ñu xam démb lañ newoon mu jaral leen pour delluwaat ci démb jooju ni ñu newoon mu jaral leen gàdday jóge seen réew dem beneen réew boo xam ne amuñ fa alal amuñ fa mbokk amuñ fa suuf dara kon lan la yonte bi def si ñoom ba ñu gis njëriñi loolu ba ñu gis xéewale loolu ba ñu gis bànneexu loolu ba mu jàlleen gàddaay seeni suuf gàddaay seeni alal gàddaay seeni njaboot ngir dem mën a dund gi loolu nga xam ne yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam def na ko seen biir xol yi moo tax jullit ji jullit bi na xam lan la ko yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam defal lan la ko lislaam defal fan la ko lislaam jëlee ak fan ko bëgg bëgg a yóbbu loolu nag la noonu lislaam bi bëgg a dox ci kanam baare ko ci kanam jullit yi wan na image yoo xam ne ay image foo ay tricage la boo ci duggee mu labal ci musoo boo xam ne eh, wa iyaasu billah moo tax yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam deuxième gàddaay ga ba mu leen waxee gàddaay leen dem madinatul munawwar jullit ñi gàddaay dem madinatul munawwar bi ñëwee madina nga ñëw suuf soo xam ni amoo fa mbokk amoo fa alal amoo fa dara waaye xoolal ni yonent bi tàggatee saxaaba yi muy waa madina di muhaajiruuna ba nga gis koo xam ni yonent bi daf leen mbokkale xool liggéey boobu la day jël benn muhaajir mbokkalee ko benn waa ansaar ni mbokkale naa leen nga gis kenn koo xam ne day yóbbu nit këram ni ko kaay ni ko lii laa am ci alal lii laa ay kër lii laa am ci soxna comme ni sahaab ba defoon abdourahman ibn awf ni ko nag jëlal sama kër sàngam sama alal dinaa ko xaaj nga jël benn xaaj ba ma jël xaaj yi dinaa xaaj samay tool nga jël yee ma jël yee ñaari soxna laa yor danaa fas xoole ka la sa neex ma fase ko mu te mu jàpp idda ba iddaam na takk allahu akbar waaw ban tàggat ban jikko nga xam ne jamonoy sedd ko ëppoon doole sa morom nangu alalam jël la mu yor jaay ko doole wan ni maa la gën kooku dem ba mujj kam doon jaay doole wan na ko maa la gën mu mën a xaajoog moom alalam mën a xaajoog moom këram mën a xaajoog moom ay suufam mën a sax xaajoog moom ay soxna kon yan dikko la yonte yàlla muhammad sallama def ci jullit ñi ba ñu am pas-pas boobu ak gëm-gëm googule mbokk yi jullit ñi nañu xam jikko yooyee waaye lan la ko mbokk yi abdourahman ibne awf daal tontu daal ni ko barakallahu fik yàlla na yàlla barkel وان ما يونو مارشي الله اكبر واجي وان كو يونو مارشي عبد الرحمن نوف دي كوميرس كوميرس بو بوك ني اوف علال مدرسه منور كون بوكي ني لا يونت بي تاغوتون صحابه يي با يالا تاغ وا انصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم حصاصه ومن يحاصح نفسه فاولئك هم المفلحون نيوم دي دا نبو سينك ناي nëbb seeni nay ba ñoom lañu ñu yittewoo sax la nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo day yëkkat di ko jox gën a li ko saxaaba yi di leen ko jox waaye yàlla mu ne képp koo xam ni fekk na nayu boppam nëbb na nayu boppam joxe te yàlla tax yàlla mu ne ñoo ñoo ngi tax ëllëg ba yàlla gërëm leen laxat taaballahu ala nabii wal muhajirina wal ansar yàlla jéggal na yonent yàlla muhammad sallama jéggal na muhajirina jéggal na wa ansar kon yonti yàlla muhammad sallama yan jikko la rabb tàggat ko ci saxaabatu kiram ba démb ña nga xam ne ñoo aman pas-pasu jaay doole jële alalul jàmbur néewal doole wan ni ñoo gën ñoo ñu tey ñoo jël ñooñu ñoo xam ne ñoo néewal doole di bokk ak ñoom seen alal di ko xaajoog ñoom di xaajoog ñoom di yaatal ak ñoom di jël li ñu ba gën a bëgg di leen ko jox kon loolu la lislaam jëme foofu la lislaam jëme la jullit ñi waaye tey nañu xool noonu lislaam yi fan lañ bëgg a dévier jullit ñu yóbbu leen noonu lislaam yi dañuy ñëw làqatu ci ginnaaw benn tur muy tahrirul mara mooy libéré jigéen mooy jigéen ñu ne jigéen dañ ko tënk ba amul ay liberté libéré bu nag la làqat ci ginnaaw libéré boobu la l'islam la ñuy direct te nañ ko leer insha allah bu dee ci dëkk jullit ji mi ngi njëkk a sosoo ca misra lu yàgg yàgg yàgg yàgg dal di wasaaroo ci dëkk jullit yi nag ñu tàggat ay nit yoo xam ni turu jullit lañ yor comme yow wan ni la gëm naa yàlla di jàng aaya alquran ñu sas leen mission boobu ñu koy di ko wéyal ndax xam nañ ni buñ ko joxoon ñu du jullit rek boobaa jullit bi day daan day day dóor maas anal yéen ah ci du jullit kër kon dafa boo génnee sama diine waaye dañ lay wan indi koo xam ne da ngay jàpp ni kii sama mbokkum jullit la kon lu muy xeex kon euh, lu baax la ndax bu doon lu baax bu du woon loo xam ni euh, contrôle l'islam du ko wax ne jullit la foofu lañ lay yóbbu mu tasaaroo ci dëkk jullit ñi ñu ngi ne woote woon ni dañuy libéré jigéen ci yenn mbir yi nga xam ne dañ koo tënk rawatina bokk na ci li nga xam ne dañ sariya l'islam la ndax moom rek moo doon tax a jub ba ca jiitu mooy xijaab muy muuru ñu ne muuru dafay bloqué jigéen ci ay liberté am dañ koy xeex bokk na ci yeneen yi xeex mooy taqiyidu talaq mu ne fase dañ ko war a bloqué ba nga xam ne góor woowu dafa saa yu neex rek mën a demal bokk na ci yeneen yi nga xam ni man utaaddudu zawjaat ñu dañuy tere ba góor dootul amati jigéen soxna yu bari ci benn la mën a yem moo tax suñu dëkk yi nga xam ne ñemewuñ koo attaqué dëkk dëgg dëgg dëgg benn système la def boo xam ne bu reelu la mooy boo nee polygamie wala monogamie boo nee polygamie mooy am nga da ngay am jabar yu bari nga si signé ko wala monogamie benn jabar ngay am waaye boo signé polygamie mooy jabar yu bari bis boo demee bëgg a changé dem monogamie mooy benn jabar mën nga koo ñu bés a waaye boo signé monogamie mais benn jabar moom moo too changé ni polygamie laa jëm xoolal bi bi caaxaan léegi yow boo demee mairie wala tribunal nga signé ni man kat dama signé ni am ñeenti jabar yaakaar jabar ngeen signé d' accord bés boo demee ba yàgg ngay léegi bëggatuma am ñeenti benn laa bëgg a yem man nga delluwaat bërëb yooyu nga demoon ngeen signé waat ni benn laa yem dañ la ko nangul waaye bés boo fa demee ni benn laa bëgg a signé nga signé ko yaakaar soxna bés boo demee yàgg nga ni léegi bëgg a yem ci benn ci ñeent dañ la la mënul nekk pourquoi ñu nangu bële mënuñoo nangu bii dafa am jubluwaay ba ceeb ba ca ne mooy xam nañ kii pays pays jullit la def nañ as tuuti ngëm yàlla du ñëwee brusquement rek ñu interdit nañ nangam waaye système bii lañ koy jaarale kon mbokk yi dañu xam bu baax a baax a baax loi yi fan la jógee ay loi maçonnique la waaw ñu ko indi mooy xarakatul ilmaniya bi nga xam ne nasaa fi misra mouvement yooyu nga xam ni ci wàllu euh, faramaçonnerie ci la dox da xam ci dëkku lislaam yi ba ca njëkk installé wu misra la muy Égypte ndax boobu jamono jooju moo nekkoon central ba bokk na ci li xeex moom mooy musaawaat seen miraas ñee jigéen daa war a yem ak góor ci miraas islam dafa xeex jigéen bokk na ci ngi ne jigéen bi gën ci modèle yi mooy occidentaux yi mooy maratul garbiya mooy jigéenu occidentaux yi ñooy modèle yi ñu daal di wasaare def ay mouvement def ay ONG ñuy wër di toog ci kër yi jamonoy télévision ñuy toog ci plateau yi di défendre ñu dañuy défendre àq ak yelleefi jigéen waaye nag duñ la wax kam moo xañ àq ak yelleefi jigéen directement waaye lañ sa jublu mooy l'islam moo xañ jigéen àqam ak yelleefam ka nga xam ni bokk na ci kenn ci njëkk a bind téere ca message ci égypte ku ñuy wax marc fahmi nekkoon benn avocat nekkoon an nasraniya doon benn chrétien bindoon ci daldi daa fihi ila xadaai ala alxijab wa ibahati alixtilat wa taqyid talaq wa manu zawaj bi aksara min waxida mu ne mu woote woo ni nañu yëkkati dindi muuraay fexe ba góor ak jigéen ñi di jaxasoo ñu tënk fase ba nga xam ni nit du ko neex rek mu fase fexe ba interdit takk lu ëpp benn soxna euh, fexe ba daganal jigéen jullit mën a sëyeeg góor goo xam ne du jullit góorug nasaan góoru chrétien moo tax bokk na ci seeni moyens yi ñuy jaarale yooyu mooy ay genre film yoo xam ni dañ koy wasaare ci àdduna bi film yoo xam ne dañ koy joué di ko wasaare ci àdduna bi ak ay journal ak ay roma di ko bind di ko wasaare fexe ba nit ñi mën cee jot ci nu mu gën a yombe film yooyu nag dañu tàggat ñoo xam ne ñoo koy joué mooy toujours dañuy mbubboo ay jullit waaye seen comportement daray comportement jullit du ci ne daray comportement jullit du ci ne film yooyu ñuy séen nag dafa am objectif boo xam ni long terme la du daar daar long terme la yoo xam ne dañ koy ji ci xol yi ji ko ci comportement yi ji ko ci doxalin ni ba nit ñi dem di ko yàgg a gis ba jàpp ne kon nii la war a demee bu boobaa bu nit ñi jéem a exécuter dund yooyu rek ñoom seen objectif lañ koy atteindre bokk na ci mooy fexe ba ñu gëm ni sëy moom mbëggeel la donte kee am nasaraan la bu ñëwee bëgg jullit bu jigéen bi la war mooy bu ñu bëggantee maye loolu nag ni koy jàlle ci théâtre yi mooy lan dañuy jouer benn théâtre boo xam ni nit ki day day mel noonu doon am nasaraan ñëw di ñaan ci benn jullit bu jigéen waajib du ma ko may ndax lislaam ñu nekk ca nekk ca ba ndaw si def ay pexe ba keneen maye ko waajur bi wane ni moom génne na ndaw si boppam dogoon ak moom ñu dem ba jimmi jamono ci film bi ñu teg pa waajur bi mel ni nattu moo ko teg mu am benn jafe-jafe ndaw si ñëw ak boroom këram di dimbali paa bi di dimbali ko dimbali di ko ba paa bi jugaat daal di dajalewaat famille bi wan moo nekkoon ci erreur waaye ñu ngi gërëm doomam bi ak boroom këram moom ni moo juum léegi waajuram moo dellu suwaat si loola wan ni reconnaître na léegi ne lii lu mën a nekk la léegi nag loolu ñu koy jiw ci xelu jullit ñi wan ni lii lu possible la lu mën a nekk la di jouer ay film ay théâtre yoo xam ni ña nga xam ni bu njëkk leen doon wooye ay borom ñaari tur nga xam ni foo leen mosoon tudd nit ñi nit ñi sib leen seexlu leen ñu fexe di leen jox ay rôle yoo xam ni rôle yi ci film yi ni ngi leen di bëgg par force ba yow mi nga xamne ya ko bañon yaay tuleen di ko défendre ba nit bu ko waxe dara ya koy défendre yow subhanallah ñu fexe toujours dañuy fexe théâtre yoy dañ koy jélo moy ay nit yo xamne ñom ñoom yàgg nañoo futteeku ci public di défilé wu di wala tan ciir nga xamne ne ñooñu kersa moom taxul ñuy wax dañ koy tégué ne kon ñooñu rôle bo leen joué dañ ko mëna a ndax lan dafa am objectif bu tax mooy boo xoolee théâtre légui seen i film yi ak yowoon démb démb donte am ngay erreur dañ ca gis lu dañ la wan lii lu baax lii lu bon fin ba ñooy la lu baax moo gañe au moins nga am tuuti la ci jàngee mais léegi xool leen ne ñuy teg ci télé yi ak yi demee noonu doo ci gis benn fin bu ñu ne lu baax li amul niveau de vie bañ lay wan nekk lu wér pour wan ne yow mi koy seetaan lii mooy niveau bi bi vie bi nga xam ne moom nga war a dund ne koy see seen col koy dara di ci baax seeni kàllaama yi dañuy fexe ba ñuy génnee kàddu yoo xam ni bu ko nit mosoon a génnee nga dar ci sa nopp léegi ñu koy génnee wan lii lu légal la subhanallah ñu lay seet la wan nit koo xam ni day fekk way juróom bu góor am soxna soo xam su ndaw la mu yoxo ci suuf di jël soxna si subhanallah ba way jur bi turbe ko jàppanteeg moom waa ji génn kër ga soon a si dem fekki waaj à la fin fu ñuy mujjee moo ñu nëpp nëppal famille bi dayee jubale ba juboo daal di amaat moo ne dara lu gara amul foofu ñu wan la see film wan la ne nit ki day am soxnaam am tourné ci ginnaam bi suuf soxna wala mag yi di ko suufu bu ko xamee coow am ba séparé am waaye du tax rakk ja bàyyi loola wala mag ja bàyyi loola ñu gëm loola lii mooy dund bi nga xam ne mooy lu normal gëm loo ni góor war sa am kilifteef ci jigéen ñi ko defal wala bul def toogal wala demal dangay ngay gàddu sa saag dem xëy mu gàddu saag dem xëy amoo droit ni ko foo jëm ndax sañ-sañ ba nga am moom la am loolu dañ koy jouer ay film fexe ba jël ay nit yoo xam ne leen di woowe ay star fexe jàppale leen ba nit ñi bëgg leen ba seeni message bu ñu bëgg a jàllale ñoo ñoo koy jàllale moo xam message u ñaari tur la moo xam message u nangam la moo xam message u nangam la ñooñu ñoo koy jàllale waaye dañ fexe ba ñooñu wàllu social wàllu ndimbal dañ ko si dañ koy fexe di ko def ba nga xam nit ñi comme jamono ji ñu nekk nii alal dong la ñuy gis su ko defee bis bu gaa yi jàllal ñooñu jàllalee message yu bon yooyee bu nit ñu jugee ñooñu nga xam ñoo doon xeex borom ñaari tur ñooy jug attaqué nit ñooñu leen cii kat nit ku baax la dimbale ay nit kon nag nangam nangam bàyyi leen jàmm subhanallah loolu dafa bokk ci méthode bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy xeexee ba nga xam ne yow mi ko bañoon démb yaa koy accepté tey jii yow mi ko doon xeex démb yaa koy défendre tey jii xoolal ma film yi ñuy joué yëpp yi senegal yi joué yi ñuy jël ñu koy joué du ay jigéen ñoo xam ay référence lañu ñi ci ëpp sax xamale woon ci théâtre démb mooy ñi ci gis ñi ci ëpp ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy yëg ci podium yi di wane seen i kër di manifesté ñoo la ñuy ndax ñooñu ñoo gën a néew kersa pour ji rôle yooyu rôle yooyu lañ ci jullu mooy yàq ak détruire askan mbokk yi nañu xam ne noonu l'islam fu ñu jëme moo tax ña ñuy jël ñu koy jouer am nañ ci responsabilité bu rëy rëy seen karam borom subhanahu wa taala seen karam borom subhanahu wa taala léegi nag ni ñu koy jouer mais fexet wan ni bërëb bu góor nek jigen man na fa nek wala li muuru complexe la di jouer ay rôle yo xam dañ lay wan li nga xam ni moko don ris dembu démb base l'islam moy kersa nga al haya min al iman ni wala ni kersa complexe la ñu fexe ba jigéen ñi ñu sori leen muuru ayibal len ko fexe ba góor ak jigéen di jaxasoo ci milieu bu ne mooy góor bu amee bureau sax secrétaire am jigéen la war a doon fexe ba bërëb école yi góor jigéen yi mën di jaxasoo di toog di jàng marché yi góor jigéen di jaxasoo toog bërëbu liggéeykaay yi góor jigéen di fa jaxasoo ba nga xam ne bu ñu yàggee loolu danger dootu amati nit ki dootu gis ni lii kat ab danger la loolu yàlla tere woon ko démb day dem mbaalaaxee da koy miin day dem doon lu garaaw ci moom bu boobaa kon mu sànjaafu ko lu yomb lay doon kon lii méthode la boo xam ni noonu l'islam yi ñu ngi koy xeex pour yàq ji koy di ko jaaral nag ci turu jigéen ndax xam nañ ni jigéen moo gën a sensible di ko tuddee hurriyatul mar'ati di ko tuddee musaawaat bayna ar rajul Euh, liberté libéré jigéen ak euh, égalité yi demee ni noonu fu góor nekk jigéen mën na fa nekk ba nga xam ni jaxasoo góor ak jigéen day am te bu jaxasoo amee fitna daal di juddu bu fitna juddoo kersaat yi demee ni ki noonu day daal di dàqu bu boobaa lépp luñ bëggoon jàll day day day mën a jàll kon ñoom seen jubluwaay euh, loolu la muy doy war ndax jaxasoo góor ak jigéen bu amee sagu dafay dal di daqu kersa dafay daal di dàqu te loolu mooy jikko yi lislaam yi nga xam ni mooy jikko yi gën a foor loolu nag boo ko dàqee moo tax ñu yombalal wàllu communication ba nga xam ni loo def am jumtuwaay boo xam di ci mën a communiquer ubbi ay application yoo xam ni application yi da lay yombalal ngay mën a toog sa biir néeg ruq def ay vidéo wasaare ko bi wane say melokaan di ci wane yi day waar ba nga xam ni dañuy wasaare mbon lool nag dañ ko yombal lool lool lool ba nga xam ni lu waaye am mën a am jumtukaay yooyu la ñu ciy jàllee application yoo xam ne lépp lu bon la dara lu baax new ca ngir mën a wasaare lu bon mbokk yi gis nga fegu ak kersa dafa nekk loo xam ni mbir bu rëy la ci lislaam ñu jox la benn misaal la ci benn histoire boo xam ne bu yéeme la mu yoon ci yàlla Muusa ba mu demee ca Madiyana dugg ci dëkk bi fekk ñaari jigéen ñu ngi ber seeni xar nale sori góor ñi góor ñaa nga ci ten bay root waaye ñaari jigéen ñi beru nangu ñëw jege góor ñi allahu akbar Muusa alayhi ba mu ñëwee lu mu def ndax dafa ñëw di enquête ga na ngeen def yéen ngi si jàmm foo leen jugee waaw lu tax ñi di naanal naanalu leen waaw yéen lu xew ndax ngeen di sàmm lu tax seen i waajur moom xanaa dafa am lombu góor waaw ba mu do fekk am lombu góor xanaa mu ay ay ay jarbaata ci demee si noonu déedéet boobaa day yaatal waxtaan te ñi ay jigéenu jàmbur lañ ci moom dafa ñëw di situation bi rek ma maaxat bu ko ma waaye li seen mbir yéeg ñaar wax ju gàtt di ëmb lu bari ndax jigéen ñi tamit nekk nañ fa di détaillé ñun kat boo gisee lii nangam la boo gisee lii kat lii moo ko waral déedéet tontu bu gàtt lañ tontu ndax ñoom tamit Moussa góoru jàmbur la ci ñoom moo tax yàlla ni fa wajada min dunihim imraatayni Moussa dafa fekk ñaari jigéen ñu nekk fële sori teen ba ndax teen ba ay góor fa nekk Moussa laaj leen laaj boobu ñoom li ñu ko tontu ñu ne ñun kat dañu nàndal lu dul góor yi dañoo nàndal ba pare ba dem ñu soogay ñëw ndax bëgguñoo jaxasoo góor ñi allahu ba bu doon suñu jamono jii nag dañ lay wan ni loolu complexe la demal nga buuxante ñoom mbagg yi laante ngeen di filante ngay root ñu root waaye ñoo ñëw fekk góor ñuy root ñu écarté wu na le berse ni jur Moussa gis action bi bu laaj leen lu xew ñu ne ko suñu bàyyikat mag la te ñii kat ñun bàyyi ñoo nandal dañuy bàyyi ba góor yi nandal ba dem la mooy suñu bàyyi mag la message la mooy suñu bàyyi mag la ko moom mënu sàmm xam nañ kon ci déggin ba mooy am fa bàyyi góor Moussa ñëw daal di nandalal leen ba ñu seen jur yi màndi ndax Moussa tegaan na ci beneen kàddu waaw man kat ak doxu dem laa fa ma daal ndax ëggal am na fa ma nekk déedéet ay jigéenu jàmbur la suma tawalla ila zil mo dafa dafay nandal rek dem toog ci keppaar ga toog pare na ca indi ubbu benn kaddu mbok yi li mooy jup mbok yi li mooy fegu mbok yi li mooy mandu xolal jigéen ña kaddu ko wul musa kaddu ko wul jigéen ña bañ delo sen papa wax sen papa defee dem len ngeen wol mako bi musa ñewé yalla ya ma ndox ndox mi ngi dox andak kersa ba musa ñewé ba seen baay laaj Moussa mu nettali ko histoire am ba ba jeex ndaw si lan la wax pappa ji papa kan liggéeyloo ko inna xayra man istajarta ahu xawiyul amin papa kan liggéey kii ndax ki gën ci ki ngay moo koy xam ne am na kattan te wóor na ndax Moussa am na kattan moom sel moo nan na juri wóor na mooy lan ñëwul di leen laaj leen ko caatu i laaj foo leen dëkk wax nangam ndax am ngeen borom kër ndax nangam laaju leen loolu de benn kàddu lu waral lii ñu ne ko nangam mu nandal leen dem toog ca kapaar ga moro ñu ne kii am na kàttan te wóor na allahu akbar mbokk yi xool li fa yàlla jàngale ndax suñu jamono ji noonu la ñu doxalee nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon mbokk yi lislaam dafa soxla dafa jàngale ay jikko yoo xam ni jikko yu tedd la moo tax yonte yàlla muhammad ne innama bu isto li utammima makarim al axlaq dañ may yónni ngir ma matal jikko tedd yi bi ko sahaaba yi laaje ay muminin afdal imanan ban julit mo gën ci ngëm yàlla xaala sa salaam ahsanuhum xuluqan ki gën ci ñoom jikko kon mbokk yi jikko mooy lépp moo tax noonu bi bu ñëwee jikko lay attaque bu jikko yi li fees ci am solo moo tax yoon ci yàlla ma al birru husnul xusnul xulqi mbaax daal mooy rafet jikko mbaax mooy rafet jikko jikko yooyu nag lu lislaam jàngale pour jikko yi mën a baax ñëw tabaxaat jikko yi boo tabaxee jikko yi tabax nit bu boobaa boo tabaxee jikko yi ci biir kër gi bu génnee ci pénc bi demee ci école ba dafay normal bu jógee ci école ba ñëw ci penc mi ci dëkk bi dafay normal bu jógee ci dëkk bi ñëw gérer lenn ci réew mi dafay normal ndax jikko yi moo tax moo tax noon bi foofu lay fexe attaqué ko ba nga xam ni kër ga du am kilifteef góor ga yiliful na ma amee sañ-sañ la jigéen amee sañ-sañ mën naa génn xëy jóor gi génn xëy njaboot gi taxawaalu kenn lay yar guddi lañuy wàcc ku yar njaboot ga waaye ñoom nanguwuñu réew moom day am président de euh, quartier wala gox day am maire quartier am chef quartier nangu nanguñu kenn yilifa sa bopp waaye nag kër gi nga xam ni fa la ñuy formé ñooñu nga xam ne yilif loolu ñooy kër gi amu kilifteef jubluwaay bi mooy lan mooy màbb jikkoy ba nga xam ne ka defaree ci kër ga du am benn jikko joxet bu génnee lañ ko bëggal dañ ko maa def nañ xam loolu baax a baax a baax a baax moo tax la jiitu ci jullit bi di ko def ci njabootam yonent yàlla xam Muhammad jàngal ko mooy ngëm yàlla يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يلا من باخ نكل ما جولي فينك ولا سور سو لجولي جولي جولي لا واي نكل جولي كتا ما باخ نيت جولي نا دم شباربا باربا نيت جولي دم ما يلا نيت جولي نا دم تاشي واي لن ما يدق دق باخ من آمن بالله كيف قم يالله wal yawmal axir gëm ba su àllaaxira may gëm ni lépp lu ma def ëllëg dinaa taxaw kanam borom mi xisaab ma ko kon boo jullee ba génn di nga xool bu baax li nga def si tànk wal malaayikatu nga gëm ni malaaka am na kon gisoo ko waaye gëm nga ni foo toll yàlla boon naa ñaari malaaka yoo xam ne loolu yëpp ñu ngi koy bind kon ëllëg da nga taxaw kanam borom soo taama nga xam ne lii yàlla jàngale ci téere bi kon naa ci jéem tënku sam bopp wa nabi yi nga gën ne yàlla na ay yonent yoo xam ni ñoom la wax yi ñooy royukaay yi naa jéem a xool fan la yonent yi tegoon seen tànk ba jëm fàtte sama tànk kon yàlla mu ne lii mooy gëm yàlla waaye nekkul julli kese mais nooñu dañuy fexe ba formé ñoo xam ni ñoom la ñu seq ak jaamu yàlla mooy julli bu ñu jullee gën nekk si lañ nekkoon nekk sa carte ga carte ga ba ba ba ba julli jot nga dem julli jóge si jàkka dalaal si carte ga foofu la ñuy formé ñoom nekk sa mooy yàlla ga ba kii jot nga dem jàppe julli dalaal ci mooy yàlla gi subhanallah nekk ci marché gay trian ki jaay ak wàññi ay balance ki ba julli jot nga lal sa sajaada dal julli dellu wàcc la nga nekkoon subhanallah kon fii leen bëgg a yóbbu julli ñi gëmloo ni tekki moom mooy am am pas jikko ji rafet noo mënta mel boo amee yaa gën ba nga xam ne way juri ñoom seen yar seeni doom ci ban fànn lañ koy yóbbu yar seeni doom mooy produire xontu jaay noonu lañ jàppee doom naa jur naa yefal naa boyal mu dem indil ma dara amul jikko ji rafet amul baax moom daal bu amee tekki na lu mu baax baax bu amul tekkiwul sagaluma nday ju liggéey daal ba gëm looyu nday ju liggéey mooy doom joo xam ni mi ngi indi dara day sàcc sa yoon newu ci day trian yoon newu ci day mooy yàlla ko am sa yoon new ci moom daal indi na dara tekki na loo baax baax jub ba ñëpp da ngaa amoo dara yow tekki woo boobu ñu dugal ko ci bopp doomu aadama yi julit bi war a fexe ba yar doomam ci dëggu bañ ne ba suñu borom dafa ne yowmal xiyam li yajji allahu saadiqina bi sidqihim suñu borom de dana fay ñu dëggu ci seeni dëggu yooyee kon dëggu rek mooy am njëriñ kon nit ki war naa yar doomam jàngal ko ba xamal ko ni ko dëggu rek moom sa lépp looy wax loolu dëggu mooy yàlla ni xaala allahu haada yowmu yanfawu saadiqina sidquhum yowmal xiyam suñu borom subhana wa taala daan bis bii de mooy bis boo xam ne képp ku doon def dëgg te la si dëgg jëriñ kon dëgg rek am solo kon nit ci julit bi dafa war a yar doomam ci dëggu ba lépp lu muy wax ci làmmiñam dëggu la doon ndax nit ki bu dëggoo rek dana jomma def lenn ndax lépp lu mu defat ci biti bu ñëwee laaj ko faw dëggoom mooy tax dana ko wax nan dana wax lii laa def te boobaa bu dee loo xam ne buggul ni ñu xam ko kon dana ko jarum bàyyi ko dana ko jarum bàyyi ko moo tax euh, saxaaba yi laajoon yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko ayakunu mu'min jabanan ndax nit dana ragal jullit dana ragal mu ne waaw waaw ayakunu mu'min baxilan ndax jullit dana nay mu ne ko mu ne waaw waaw waaye nag ñu ne ko ayakunu mu'min kazaban ndax jullit dana nekk fenkat mooy leen déedéet su jullit du fen mën a wax ne kii gëm yàlla waaye xaw naa nay de gëm yàlla waaye ragal na dafa ragal de waaye ku gëm yàlla waaye fenkat la déedéet su loolu amul fen kon nag nit ki bu bàyyee fen boo ko yaree ba mu bàyyi fen rek mooy defar nga tabax nga jikko bu rëy rëy kon l'islam lool la moo tax loolu la l'islam tabax moo tax yonent yàlla muhammad fexe ba saxaaba yi dëggu ba yàlla tagg leen seen i dëgg yooyee ba yàlla gërëm leen seen i kaw dëgg yooyee min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xadaa nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila te jullit ji am na ñoo xam ni la ñu siñantewoo yàlla kat ña nga ca ñii way nanu ñii ña nga ca ba léegi te dara soppeeku ca kon fii la sax yonte bi yaroon saxaaba yi ñu toll ci dëggu kon sa njaboot boo buggee mu jub da nga koy yar ci dëggu doo ko ci dëgg waaye nag na fekk yow mi koy ci dëgg nga dëggu yow waaye bu dee yow mi gis yow comportement ay wax yoo xam ne daalu ci dëgg mënoo ko teg ci dëgg ndax faaqidu say in laa yutihi nekk la nga ñàkk mënoo ko joxe beneen bi mooy al amaana mooy kóolute jullit bi war naa yar doomam ba mu nekk wóor xam nga doy na waat lool buñ dee ba jamono nit jóg ni dama bëgg am ku wóor ku ma liggéeyal nga ne ko waa dinaa la xoolal <laughs> subhanallah kon yow mooy ña la wër yëpp di si kenn ku wóor dinaa la xoolal mooy sa bët jéggi na ñaa jege yow ndax bu fekkoon ni ña la woo am na ci woo da nga ah am ah, man na gis na waaye ku wóor nga solo la xoolal mooy kon ña ñi nga xam ne ca xel mën na fa ñoom kon jàpp nga ne wóoruñu kon buñ nee ba yegg fi musiba am na moo tax dafa bokk ci jullit di yar njabootam ci wóor te ba muy nekk xale tàggat ko ci wóor xamal ko ni ko cër bu ne dafa am àq sa diggante ak sa borom da yàlla na la ko laaj xamal ko ni ko sa tànk bii lépp loo ci dox ëllëg yàlla dina la ko laaj sa loxo bii lépp loo ci laal ëllëg yàlla dina la ko laaj sa bët bii lépp loo ci xool ëllëg yàlla dina la ko laaj xamal ko ni ko fexeel ba nit bu la wóoloo ba dénk la loolu mu la dénk ba ko soxlaa na ko fekk nan ko soxla nan la ko dénkee woon ndax yoon ci yàlla muhammad sallama looloo tax ñu tuddoon ko amin boo ko jëloon dara dénk ko na nga ko fasee woon ci morso ba boo boo koy laajaat bu la koy jox dara ci fecceeku waaye dangay ngay dénk nit billet mu fay la weccet kon xam may jaayoon na billet yi <laughs> la xam may jaayoon na billet yi xam nañu doom tàggal ko ba ba jàngal ko ni ko nit ki ba la joxee liggéeyam wóolu la na nga fexe ba respecté kóolute liggéeyam boobu mu la jox nga sàmmoon teg liggéeyam boobu mu la jox ndax kóolute la ba ngay xëy heure di wàcc heure nga ne koy say kaddu nit ki bu la wóoloo ba wax la sekkereem fexeel ba bul feeñal sekkere ba ak koo mën di yaakaar ni kii ku mu wóolu la nëbbal ko sekkereem ndax dalaa woo ci ruq wax la li nga xam ni sekkereem la fexeel ba na ngay sàmm sekkere boobu le nga koy yar sa doom di ko jàngal diko yar diko jàngal liko responsabilité bu la nit jox xamal ne bàyyi na say morom tek ko sa loxo kon fexel ba samal ko responsabilité yoyé mi ko wor kon jikko yi le l'islam di tabaxé do ma adama ba nga xamni bu génné ci penc mi nit ko jub lay am bo xamni ni ngi dañ koy naw di yar sa dom diko jàngal lan moy kersa nga xamni yonti yàlla Muhammad sam neen alxayaau laa yaati illa bi xayr kersa moom nit mënu ci jële loo yiw wan ko ne ko nit ki warul wow bët bu njëkk bañ doon maye jànq nañu xamee ne nangu na mooy buñ ko waxee mu noppi ndax rus naa wax waaye léegi daan dang taxaw jub taxaw jàkkaar awaay jëm joxal bi leen baaraam wax mooy kersa dégagé na ndax lan ki ñu ko bëgg a may wala ki ko nangam moom kat mo gis yàgg nañu gise moom moom ay at ñuy gise nga dañu xool te jikko subhanallah ñu fexe ba wan leen ni kersa bu ko doomu aadama ñàkkee nekkatul nit ndax yant yàlla muhammad nee na inna li kulli diinin xuluqan wa xuluqu al islam al xayaa mu ne diine joo gis am na jikko lii mooy jikko diine ji lii la ñu xamee diine ji mu ne la ñu xamee islam nag mooy kersa moo tax yonte yàlla muhammad salaa sallam nee na bokk na ci la nga xam ne nit ñi fekk nañ ko fi ca diine yonent yi njëkk ya mu des ba tey dara saanduñ ko mooy inna mimma adraka annaasu min kalaami min kalaami nubuwati l ula ida lam tastahi fasna ma chita mooy nit ki bu demee ba amul kersa lu ko neex mën naa def kon mbokk yi nañ yar suñu njaboot ci kersa ndax lislaam dafa bëgg a yar ñi nit ki nga yar ko ci kersa kon benn fexe def sa njaboot jikkoy rafet fekk tàggat sa njaboot ci dëggu yar ko ci dëggu mais yow mi koy ci dëggu na ba dëggu yow mu yow ndax xale toujours lan koy wax toujours yow mi yow lay xool yow mi koy wax ndax yaa nga sam jët boo ca nekkee dafay yomb loolu mu jëfe ko ba nga xam ni dina rus wax lu dëgg nga yar sa doom ci kóolute ba nga xam ne lépp lu ko waay dénk dana xam ne lii du soo moomeel te ëllëg dinaa taxaw korom borom bi soo salaam laaj ma ko nga yar sa doom si kersa ba nga xam ni xam na ni bu ko ñàkkee moom ak male ñoo yem ba nga xam ne dina am dina jomba def la nii ndax kersam dana jomb ñu fekk ko ci yenn milieu yi ndax kersaam dana jomba wax lenn ni ndax kersaam dana jomba jëf lenn ni ndax kersaam bu boba di nga tabax nit ko xamni nit ku nite lay doon waaye noonu li bi yooyu lañ ñëw di nga xeex tudde yooyu ay complexe wan dama dafa war a ubbeeku dafa war a yaatu dafa war a am fit dafa war a dëgër fekk yooyu jublaay mooy mabbo ay jikko yu rafet yi l'islam tabax la bu boobaa fa muy yóbbee nit ñi mooy société boo xam société bu yàqu lay doon société boo xam ni nit mën na am xolu nekk ci biir société bi di yor ay xale yu ndaw di leen tàggat waaye di wut ci ñoom xaalis yëpp di ko xool mu leen tuddee ay tur yoo xam ni tur yu doy waar la lenn turu l'islam te ku koy def l'islam bay bu boo mu koy tuddee yoo xam ne ñëpp xam ni ay intere mooy ca lalu ñëpp mën koo sëg kenn bañ cee wax loolu la koy waral mooy jikko yàqu buñ demee ba mën a teg ci dëkk boobu leen télé yooyu di ci teg ay film yoo xam ne saaga dat dat dañuy dégg ak kàddu yu ñaaw ak comportement yu ñaaw ak sol yu ñaaw ñu koy joué ñëpp noppi di ko rafet lu ko seetaan mooy jikko yu yàq noonu buñ demee ba société boobu leen ñuy daje ay milliers yoo xam ne xam nañu millier yi ñuy daje jëf lu bon na ak yàq ak lépp loo xam luy xeex diine la njabar man faa tasaaroo fas fa lool ba ni ñi def ko loo xam ne lu jaar yoon la lu mënta ñàkk la mooy jikko yàq noonu mbokk yi kon bu ñu bëggee normal nañu dellu wàcc jikko yi nga xam ni moom la lislam jàngale nañu dellu wàcc jikko yi nga xam ni moom la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jàngale woon ndax innama bu esto li utammima makarim al axlaq yàlla daf ma yónni ngir ma mottali jikko yi tedd yi moo tax lenn loo ko yàlla tey tagge tàggee wa innaka la ala xuluqin azim yow de yaa ngi si jombaxtal jikko di kawe kon jiine jii bu ñu bëggee mu wëy bu ñu bëggee suñu dëkk bi jaaraat yoon ñu amaat ay nit yoo xam ni nit lañu lépp lu ñu leen dénk mu wóor ñu teg ko fañ ko bëgg a teg na nga defar jikko yi tabax nit ci jikko yi nga xam ni moom la ko l'islam tracé waa asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk mi ñu ngi leen nuyu baax a baax a baax a baax may rafetlu question bi am na solo mooy l'islam la nga xam ne jàngal nañu ko dafa am lamboo góor ak jigéen yépp بحديث بخين إذا خطب إليكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد أريد يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم دفني كيف كورن جسم يودي نيان سخنا كون يوتمي يومي نيان سخنا كان جيس موم تاميت كذلك نونا كو خامني غرم ген دينم ماي جيس ген دينم مانشي غورغورلو la mooy diine diine mooy li yàlla jàngale nii na jullit bi mel nii na jullit bi doxalee nii loolu mooy diine képp koo xam ne gis ngeen ba gërëm ngeen diineem mooy gërëm ngeen ni liikat kat du nekkul lu mu triché wala lu mu def ngir am nangam waaye lii lu muy dund la ba ngeen jàpp ni kii ngëm-ngëmam la ci diine yemu ca de wa xuluqahum ak jikkoom teg ca ndax nit ki mën naa doxal doxalin diine bu rafet waaye jikko ca baaxul jëflanteem day xaw a day waar nit ko soxor la wala iñaan mi nga ci moom wala yenn jikko yi nga xam ni wax dëgg yàlla kenn rafetlu ko mi nga ci moom kon nag ñaar la yonte boole muy góor muy jigéen góor gi jigéen ja ngay dem di ko ñaani na nga fexe ba da ngay gërëm ci moom na doon diine ak jikko ji rafet jikko ju baax diine nag dafa làmboo lépp lu lislaam santaane ci jigéen mu mu diine woo ko mu doxalee ko jikko mu làmboo jikko joo xam ne jikko ju baax la joo xam ne comme yi ñuy waxoon dëggu mi ngi ci moom kersa mi ngi ci moom kóolte mi ngi ci moom kersa mi ngi ci moom yi demee ni ki noonu góor gii ñaan ci tamit di ñëw di ñaan ci soxna yi tamit na melo mel melokaan woowu lislaam soxla mooy doon góor goo xam ni diine gis nañ ko ci moom diine joo xam ni ah, macha allah jikko it gis nañ ci mu xam ni kiit wax dëgg yàlla mënuñu koo jëm ci wàllu jikko lépp lislam santaane ma ngi cay góorgóorlu te jikkoom doxalinam jëfantam nit ñi rafet nañ jëfantam yàlla mën ne boo yonte yàlla mu ne boobaa nañu may kooku soxna bu boobaay kooku na nga dem ñaani ko soxna la ma tax ne boo leen ko defulee fitna dina am luy fitna dina am boo leen defulee loolu mooy kon boo leen jëlee may koo xam ni melut noonu kon lamay muy mbiri fitna naam digënté mak soxna sa ndax jëf jëflante gi du am soxna si bu amé diine waji amul diine tout fitna da fay am waji amé bu amee damay diine sax amul diine su fitna da fay am mo tax yënd mi ne su loolu amulé fitna dafa fitna da fay am ci ko suuf ak yàqute gu bare bare bare bare moy da ngay dugg ba ci biir après gis loo xam ni day wuuteeg loola wala lam la waxoon mu wuuteeg loola nga ñëw bokkoo génne ci loolu moo ci li nga fekk muy fitna daal di am tas mën na ca am mbokk mën na ca yàqoo wala am di jàmm moo tax yoon ci yàlla man ni balaa ngaa dugg yooyu kuur ki yow ki jigéen balaa ngaa dugg jëlal ñaar yi def ko salaltaay muy diine ak jikko diine mooy na ko yàlla sante ndax waa ji noon la mel na ko yàlla sante ndax ndaw si noonu la mel beneen bi mooy jikko ji muy jëf leen jël ndax jikko yu lislaam ndax jikko ci rafet la ndax jikko ju lislaam gërëm la bu ñaar yooyu amee yoon tam mën a mayee leen ñoom ñaar boo leen ko defee leen fitnaam ndax dangeen may ñoo xam ni ñu wuuteeg loolu la te boobaa jafe-jafe ñëw ca kanam incha allah